Zahra li muy wax laa comprendre. Patrick. wax. yow la kan. yow mi ma woo xanaa xam nga ko. ta gël. yaa la woo maa la woo. yow la kan d'abord. yow mi ma woo xamoo. kanam ñuy seetaan ci kanamu senegal ci kanamu àdduna yow la kan. yow yaa mbokk yi xam ngeen ne démb heure bii nii. maa ngi woon fii ak jinne bu doy waar. dama raag ba dugg boîte vocale macha allah. waaw waaw xam ngeen ne démb heure bi macha allah. si ngeen jinne bi tamit tey dafa pare pour xeex. waaye dinañ damm yaram bi ba duma laale ak moom sax duma laale ak moom filmer leen bu baax duma laale ak moom dafa mel ni yatokaa la xaw ma judokaa la xaw ma yato la xaw ma zid xaw ma confiman la waaye nag bul fàtte amoon na ay jinne yi ma fi jàppoon ay confiman lañu ay karateka lañu ah ne nag maay seen maître ah les waaw mun nañ damm loxoy ba du jóg waaw mun nañ téye loxoy ba du jóg mun nañ ray loxoy ba du jóg waaw xam ngeen nag mankaañ am na fi la am na fi yooyu yëpp am na dóor daanu ak yooyu yëpp a ngi fi macha allah te xam nga ne <laughs> euh, loo mën a mën a doore bu ñu neexee doo ñu laal boo ñu laalee rek wàcc bopp bi ngay jiital gis ngeen jinne bi nag tey dafa ñëw ak xadar ak doole ci laa gis ngeen euh, sécurité yaa ngi ni taxaw macha allah bu nag dama ne woon ñu génn Diop mu leen ma ne ko nag génn ak yeneen sécurité yi maag jinne bi mu may proposé ay milliards ne ma dama bëgg Thierno ñu jox la ay milliards. parce que gis nañ ne fii yaa fi ëpp xam-xam ci sëriñ si pour nga ñëw gérer ñu macha wàllu mystique bi ci wàllu franc-maçonnerie ci wàllu homosexuel ma ne ko a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ma ne ko man yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku bokk la kan eh, xeex bu metti ma jàpp jàpp fan jàppoo ci de démb cerno mule la ko door naa ko. waroo dara. waaw waaw dem kay face à la. xalif général fee laa toog démb. waaw waaw. moo tax tey damaa ko yaram yëpp di métti. xam nga boo gëjee def contact. boo gëjee def contact xam ngeen ñuy bëre xam nañ ñuy contact bokkuñu. ñuy bëre xam nañ contact boo gëjee def contact. soo commencé def contact commencé def entraînement yaram bi day métti. jóg mu xam na ko. loolu du sécurité xam nañu. waaye démb ah. démb nag ji koy gaynde ñoo ñëw. ma def ci lépp ak comme boobu xam nga day musculé waa jooju day def musculation waaye dem bu jub dara ci kawam lañ ma fekk ak sama grand man naa ak man naaw ak sama grand boobu te nag en général combat yi mel noonu nag day fekk ma sol grand boobu mais gis nga bu doon fekk may sol lii damay mën a def yu bari waaye noonu laa mënee grand boobu nag waaw la xalif général day jinne léegi loolu naqari ma waaw yow la kan d'abord yow la kan. kër gi yow la kan. waaw. c'est yow la kan d'abord. xam nga ne kii dafa nar a xeex tey waaye du xeex de loxo yi du jóg. nga xëy sa ginne doomi xale bi. waaw nga ne ko xaritam nga. waaw. doomam sama xarit la daf maa bëgg xale bi am ay 3 ans xaw ma 4 ans. naan garab bi ko jox yow yaa ko jox garab bi. waaw nga ma may vibrer ci bi. ngay vibrer. nga dem doose garab. loolu laa bëggoon pour jinne ko ma jox ko vite bi ñuy naan ma ne ko demal naan lii laa bëggoon. mu naan ko. waaw. dégg ko jàpp nga yónni sa maa la merloo. jullit nga. waaw yow noo tudd. mën na ñëw pour xeex wala danga ñëw pour laan dama merloo. démb bi may ñëw nar ma woon def dara dama bëggoon génn ndax man leer laay dundee. leer ngay dundee. waaw yow jullit nga. waaw man leer laay dundee. kon yow ute nga ak élémentaire yu fi ñëwoon démb. ku yorul leer. faramason yu mag yi. yi nga xamante ne ñooy doxal àdduna bi. proposé nañ ma ay milliards. bu doon beneen sëriñ la. dey accepté. kooku moo merloo dem ba may réagir. mais nag ma ne leen yàlla ak yónnente bi te nag c'est pas la première fois ba ma nekkee euh, unité 19 boobu nit moo ma woo seen chef seen patron mi présenté Afrique moo ma woo euh, ci messenger ma xool ma jël ma ne ko allo mu ne ma allo mu lakk ak man français mu ne ma moom mooy président homosexuel et de franc-maçonnerie ma ne ko yow yow yaay kat foo nekk mu ne ma man maay président mboolem formation yi nekk Afrique man maay seen président dama bëgg nga ñëw ànd ak ñun liggéey ak ñun ndax am na ay kilifa diine yi nekk ak ñun am na ay sëriñ am na ay imam am na ay chef d'état di wax te boobu xam nga sama yaram tàng na ma ne ko man jullit piir la àqan jamono yooyu commencé wu ma daaneel jinne nii dama doon faj rek jamono yooyu daaw ma terrassé jinne ma rejeté affaire yi saaga ko après ma dugg xool ma xam ne ndekete ki yàgg na di ma woo mais daaw ma jot yàggul tuuti rek suñu boroom nag jox ma kàttan bi ne ma ah yow kat góor nga garmi nga xaalis yóbbuwu la ci laa commencé jàpp ay jinne tey bu nekkoon keneen la day nangu ànd ak ñoom dugg ci mbirum seytaane iblis ñàkk yàlla ak yónnente bi kon kon na na may wax nit ñi nañu gëm ànd ak yàlla ku yàkkamti rek yàqu démb kii proposé na fi ay milliards te fekkee ngeen ne sax kër bi nga xamante ne dañ la koy tabaxal këru or parce que xam nañ li ma yor moo ëpp ñoom lu ñu yor moo tax dañ maa bëgg a récupérer man nag kenn mënu ma récupérer du xaalis moo may fëkk du dara moom may fëkk man allahu yàlla ak yónente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàppale askan bi maa ngi leen di déranger nag parce que su ma nangul proposition bi ñu rey ma waaye man mënuñu ma rey la xalif général day jinne mënuñu loolu ñu la mënuñu ma tuus gis ngeen démb ah, dama dama wéet moom ci néeg bi mais sa jinne yi ñoo ma tooñ dañ ma doole man leer lay dunde yow leer ngay dunde na sama jinne yi dañ koo forcé waaye ëpp ñu ko aw ma benn problème waaye nag xale bi ak yaayam xale bi ak yaayam xale bi ak yaayam mooy sa problème waaw lan mooy sa problème ak ci ñoom mbokk yi. li ma gis ci ñoom. waaw. li nga gis ñoom ba dugg leen yaa ko xam. li nga gis ba dugg leen yaa ko xam. waaw. léegi nag yow lan mooy sa problème ci xale bi lu tax ngay ñëw di def ay. ay yóbbu doon parce que dama mer. waaye man xam nga ne bu ma neexee sa loxo yi du jóg. dama mer. man boo ma dooree man lan. waa ñu may jéem a forcer te bu ñu ma man bu ma neexee sa loxo du jóg sa loxo day mel ni glace xam nga loolu. xam nga yaa ngi def yow fu film man bu ma neexee sa loxo du jóg loxo bi dañuy congelé loxo bi mooy gën a mooy raw mooy raw glace du jóg day dee du xam nga bu ma neexee sa loxo du jóg. man moom neex mel. yow melokaan yu bëri laa yor. melokaan yu bari ngay. waaw su ma bëggee nekk xale bi. waaw ngelaw ngay def. ngelaw ngay def. nekk ci biir bi di wëndeelu. di wëndeelu. yow ban façon melokaan ngay doon ban ak ban. man woy damay doon baar jasig baar jasik ngelaw baar jasik ngelaw ah. ak gaynde xam ngeen ne jinne bu am doole la nag. su ma nekk duggee su ma dee nekk nag dëkkuma ci biir ndox mi de. dëkkoo ci biir ndox mi. ci dëkk. ci île ban île. ne. île nekk ci biir gi ban île île bi nu mu tudd. île de serpent île de ngor wala île de lan. île bu ma neex rek man damaa libre damay wër rek. ndeysaan jinne bi nee na dafa lii léegi nag xam nga fi nga egsi xam nga ki nga jàkkaarloo. xam naa la bu baax guddul gàttul rëyul. xam naa la bu baax. guddul gàttul rëyul. xam naa la bu baax. waaw. bañuma la. waaw. jullit laa. jullit nga. xëy na nag tooñ naa. waaw. ndax damaa dugg ay jàmbur. da dugg jàmbur. te daa am histoire daa am lu ko waral. lan moo ko waral. xale bi. waaw. maamam. Mm-hmm. bi jur yaayam. maamam bi jur yaayam. waaw. waajuram dafa teel waa waajuram dafa teel a làqu. nekk xale bu ndaw. nekk xale bu ndaw. mu nekkoon foo xam ne dañ ko faa sonal. mu nekkoon fi nga xamante ne dañ koo sonal. aha mu sonn. mu sonn. bis mu jug di def yëfu xale di daw. di def yëfu xale di daw. ci àll bu lëndëm bi. ci àll bu lëndëm bi. ci laa ko gis dugg ànd ak moom pour protéger ko. ci nga gis dugg ànd ak moom. dugguma ko de dama ànd ak moom. di ko gunge pour protéger ko. xam ah, ne ah da nga ànd ak moom dugg ko pour protéger ko. xam ko boobu man bonuma waaw jinne bi bonul. dugguma ko. dugg ko. dugguma maam ji. duggul maam ji. mais dama àndoon ak moom protéger ko. Ah, maam ko woon a dugg. maam ji papaam di wàlliyu kamal. papaam di wàlliyu kamal. waaw ñu euh, ak seen i silaa ngeen ko mu ngi noonu ma topp maam ji protéger ko ba mu egg fi mu jëm nee na mu topp maam ji protéger ko ba mu egg parce que bu ma ko deful woon waaw am nañu bon mën nañ ko def am nañu bon mën nañ ko def bon gis ngeen sécurité yi Jóob macha allah saa yu gisee Thierno Moule Sow léegi nag gaynde bu nekkoon ci kanamam sax da koy lem teg ko ko nag maa ngi seen ginnaaw de gaynde bu ne woon bëreet ñëw boo ko songee boo leen ko songee duma ko ndax nag buñ ànd ak xalif général day jënne doo ragal ay naba maayen macha allah ñoom nag ñooy seere gis ngeen loolu tur sécurité macha allah tur bi naka la Matar Ndiaye gis ngeen ko gis ngeen le de sécurité yaan ma mule yëre bu ne lay sol tey day nekk chef su nekk leneen macha allah gis ngeen nag euh, karaa noonu borom ko si rafet yi macha gis ngeen doyen macha allah gis la euh, le maître anglais ñu Moustapha waxee gis ngeen euh, Saliou nag Moustapha donc gis ngeen c'est important ñu développer di wax. léegi nag yow da topp maamu xale bi ngir protéger waaw xam nga parfois jinne yi mun nañ ànd ak yow bëgg la ngir protéger la. ba mu egg fi mu jëm. ba mu egg fi mu jëm. léegi nag maamu xale bi. ma bàyyi ko. gis ngeen Noël tamit moo ngi noonu. le l'autre sécurité Noël macha allah. bàyyi ko. waaw. ba mu am doom. bàyyi ko ba mu am doom. maamu xale bi. waaw. <laughs> doom bu jigéen bu dayu aar mooy yaay xale bi. mooy yaayu xale bi. lu bari xamuñu ko. Hmm. yee ko yàq rek. macha allah. ku ko tooñ da koy gis. ku ko tooñ da nga koy gis. boo tàngalee xolam. waaw da koy gis de. waaw. waaw. ko xol bee rafet. bu weex tàll la am. mais damaa gis sonn. waaw macha allah maa ngi lay nuyu ci liggéey bi en direct ci léegi ma maa ngi liggéey bi macha allah naa la bu baax. la wax turam ak yooyu. he léegi yow. Euh, yow lan ak lan nga gën a mën sa àdduna. déglul ma expliqué la ni ma duggee woon yaayam. waaw expliqué ma. yaay ji maam ji da doon bay teg ko ci àll bi. waaw <laughs> mu nekk bébé. mu nekk bébé. damaa ñëwoon sax pour ko. waaw. mais ma yër xool ko. Mm-hmm. <laughs> gis mu nekk borom bopp. waaw. bu yaatu. ma mm-hmm. wër sëkk. ma mm-hmm. ma koy dugg. dama koo duggoon pour benn. objectif. pour benn objectif. dama defa ne woon war naa mën a doon koo xam ni dinaa def ci moom xam-xam. Mm-hmm. comme ñenn ñi ni ñuy def jinne di nekkee ñoom. ñoom xam-xam di ñaan. mais loolu yëpp dem ba échoué. parce que ki ko échoué. Mm-hmm. kenn ko doon ñaanal xamul dara. dem mm-hmm. ko saraxu bay yàq saraxu bay parfois nga sarax. fekk ne sarax boobu arrangé wu yow mi ñëw ci moom jinne bi lay dimbali. man du ma digal kenn sarax man maay def sama saraxu bopp. comme xamoon na ne xamoon naa ne dina am doom. waaw bu doy waar bu jigéen. waaw ma xaar doom bi nga xaar doom bi dugg ko. xale bi. waaw. nii bi muy am 17 ans. ba muy am 17 ans. li woonoon programme bi mooy. waaw jëkkëru kilifa la waroon am. kër. jëkkëru kilifa la. ndeysaan kilifa la jëkkëru kilifa la waroon am. période boobu nag laa taxaw. man may kilifa. Mm. gis li nekk ci moom. waaw jiitu leen ci moom. waaw ku ñëw ma dàq. mbokk yi dégg ngeen nee naa leen képp ku baax. wala jinne yi gisee dañ leen. ah waaw li ñu bëgg lañ bëgg. li ñu bëgg. lañ bëgg. borom bopp borom daraja. borom wërsëg. kilifa. suñ leen duggee dañuy yokk suñ pouvoir. boo leen duggee da boobu dafa kese laa def defuma leneen jullit laa. Ah, ah. léegi yow lan nga gën a mën sa àdduna la. lan nga gën a mën. yow bi ngay laaj sax waaye du pour man pour ñuy seetaan la. la xalif général bi xanaa. Ah? xanaa déggoo li ma la wax. waaw. jinne kay buy dundee leer. waaw waaw loolu moom dëgg la waaye nag dama bëgg ñiy seetaan xam ndax man xam naa lépp waaye sama mbokk yi may seetaan ak taalibe yi ñooñu laa bëgg ñu xam. kooku borom baatin lay doon. borom baatin la waaw xam nga kuy dundee leer borom baatin ngay doon borom xam-xam. baatin. Mhm. borom xam-xam am waaw te nee naa la nu ma neex mel. nu la neex mel bu la neexee nga mel bar jasit ngelaw gaynde man dugg léegi yow xam nga ma. foo ma xame fan lañ ma bindee. pour doomu aadama yi seetaan la boo koy xam ngeen xale bu jigéen bi génne naa ci moom ñaata jinne ñett ak benn rab xam ngeen am na bopp elle intelligent gis ngeen jinne yi bu baax rek lañu ñu dugg du ñu dugg wala kaana. Omar sama élément sa élément la woon jinne yi ma fi jàppoon. dama Omar. waaw sama élément la woon. nee na Omar am la woon. sayaatiin yi ñëwoon fii di bandi bandilu yëpp ñoom xam nañu bi fi Omar di nekk ci xale bi <laughs> ñeme wu ngeen mbokkuy jinne baa ngi wax de. jot. amoo jot. waaw Moussa kii Omar laa fi ah, fi bàyyi. léegi xale bi ñaata jinne moo des ci moom. kii man dinaa ñëw ci moom kenn dina def taxaw. kii nag jinne bi ab ponkal la ab ponkal la waaye nag. du ma ñëw ci moom kenn daf taxaw. loo ponkal ponkal boo ñëwee ci sama kër sa doole wàññeeku. damaa jëlul intention xeex. ah boo jëlee intention xeex luy tooy ci yow lay jógee. déggoo ma de. wallaahi say jinne laa la wax ñoo ma merloo ñoo ma tooñ. ma ne boo jëlee intention luy tooy ci yow lay jógee. démb damaa xeex fi xeex bu metti raak. ak jinne yi xam nga ne sëriñ bu xeex ak jinne boo yeewoo yeewoo barsak wala àllaaxira des na waaw waaye nag weesoo gudd de ñun tout le temps dañuy def pré parce que xam nañ li ñuy xaar moo bari li ne suñu ginnaaw moo bari <laughs> chaque jour on de près ku xeex ak première ambassade Iblis deuxième ambassade Iblis troisième ambassade Iblis ah ku woo gan ba mu ñëw sa kër. waaw léegi li ma la woowee. waxtaanee moom mu waxtaan ak léegi man lu ma la woowee. waaw nga wax ma ci information yu bari ma xam. après ma tuubal la nga nekk sama taalibe. man moom jullit laa. jullit nga waaw. waaye nekk sa taalibe <laughs> leneen la nag. ah xam nga ne fii jinne du fi dugg di génnee noonu. xanaa mu nekk ñoom seen waa kër yoruñu xaalis. wan ma lu ko jar rek. waaw fii duñ la woon. nee ma nekk n'importe qui. parce que duma n'importe kii doo n'importe kii ki nga fi fekk baatin laa ki nga fi fekk tamit du n'importe qui. waaw boo ma ko wanee. bu ma la wane yow kay dèjà ni nga ñëwee kay ak ni nga wàccee kay yomb na loolu kay jeex na. dañ maa cokkaas ma ñëw. waaw mais man du dugg di dóore. man du ma di def ay jackson. waaw parce man du ma maye man mayewu ma dara. waaw da dugg di def jackson. ma ne. mbokk yi jinne bi dafa dugg di def ay Jacques Chan. du ma maye dara parce que dañ maa coppaas. di door def ay Jacques waaye nag la xalif général. ëpp ñu ma doole ci bëccëg ba tey maa ngi ci kër gi di def lu ma neex te ñoom defuñu ma dara. waaw parce que ñoom ndigal lañuy doxe doxee. ñoom ndigal lañuy ñuy doxee. dèjà boo fi doon nekk di ruube lu dal sa kaw. ndax nag fii xam sa Moulay moo ngi fii jinne bu doon ànd ak yonente bi salaa salaam di xeexal yonente bi yor loxo bi fukki jaasi yor fii fukki jaasi xam nga ne jinne boobu gënoo ko ponkal ëppoo ko doole xam nga ay jinne yu mag ñi daan gunge yonente bi ñoo ngi fii sama kër tey jinne yi daan ànd ak yonente bi salaa xam nga ne loolu yombul actuellement ban la kilifa jinne bii doon ànd ak yonente nekk sa kër amul ku dul Thierno Moulay fii la gis ngeen démb jinne bu mag ay jinne yu mag yi nga xamante ne ñoo nekk ci formation yu mag yi ñëw nañ proposé ma ay milliards pour ma ànd ak ñoom yor seen mystique ma bañ ma ne leen yàlla ak yónnente bi kese xeex ak moom fi xeex bu metti ci néeg bi defe naa ne loolu kon xam ngeen ne man du ma du ma maanaam du ma porte non porte kii je suis xalif général des jinne le king of the ngeen jinne bi nag nee na jullit la nee na nu ko neex lay mel nee na maa ko woo way way maa ko woo parce que xale bu jigéen bi dañu bëgg li ne ci moom mu jeex tàkk mu mun a am jàmm moo tax ñu woo ko te déjà vite fait bi ma ko jox mu naan ko ci biir bi waaw. xel ci kaas. waaw yëngal ne ma naan ko sa yaram wi dañ. ma ne ko man du ma naan mu ne ma naanal laa la wax <laughs> forcément. Ah, nga naan ko waaw. moo koy gis ngeen du vite fait yëpp la ñuy naan nag dafa am bi ñuy naan am bu naan mooy bi ma ko joxoon boobu bi ñuy naan la waaw moom la ma butéel bu ndaw bi damaa bañoon sax waaye mu ne ma naan la nga naan ko dégg ko léegi yow lu tax nga wax ko mu naan gina ah, jinne bi ci yaayu xale bu jigéen bi la nekkoon c'est grave léegi lan moo tax nga transféré foofu wax mission bi ma bëggoon ci moom awma ma ko. Ah. te gis naa ci xale bi xale bi borom bopp la. léegi nga ñëw ci moom mais xale bi yooyu intérêt yebal naa sax ay nit ba tàyyi ñu koy puus ci loolu ndax gis nga amul benn xarit buy bopp kese. mbokk yi gis ngeen nee na amul benn xarit buy bopp kese kon actuellement soxna si jinne bi nekk sa doom ci yow xale. Ah. di ma wut si may jël ay jaas jaasi di ko dóor. Hmm. jaasi laa daan ndax sama papa mu jox ma ko mu jox ko rek ma sànni ko. ma ko sànnee ci néeg bi man mënoon na maa gaañ nit sax. bi ma nekkee mag laa ko xalaat. waaw dañ daan ŋaang rek wut si ma may dóor. dina la naa après gisoon naa ko de daanaa ko gis. maa ngi waa dëkk ñëpp a ko xam. Hmm? loolu ñëpp xam ci man loolu. ok maa bu nawetee bu ma sibburoo rek day daaru mu bu ma masaan bu loolu day ñëw bu ñëwee ginne loolu jësig boobu ma daa ma koy sànni. lu garaaw la ah. c'est grave. carrefouru jinne yi yow moomu. ci yow la jinne yi jóge ñëw ci man ñëw ci ñoom. reen reen waaw reen. jinne bi mooy wax nii. waaw jinne bi ci yaayu xale bu jigéen bi la nekkoon mu transféré ñëw ci yaayam mbokk yi lu garaaw laa ah. ñii nag suñu mbokk chef de production mu fi moo mooy CRA 221 ay mbokk lañu. macha allah defe naa ne dañ ko daan gis rek waaye tey ñëw nañ mu leen di filmer muy filmer ay mbokkam ñuy génnee jinne ci ñoom macha allah. waaw xam nga loolu lu garaaw la ngay liggéey fii ci kër gi ba sa mbokk ñëw fii vraiment ñuy génne ay jinne ci ñoom loolu tamit vraiment lu lu lu lu lu garaaw la macha allah. vraiment moom it mu taxaw ci bu baax jàpp ci bu baax a baax. vraiment ne ma sëriñ bi dimbali leen bu baax mu taxaw ci macha allah léegi mu Moustapha laajal jinne bi parce que c'est important xam ngeen ne lii amoon nañ ko ci ngóone jinne bi nga xamante ne moo ko duggoon dem dugg ci doomam defe naa ne loolu yeneen koy fàttali. maam sax. léegi nag ko jur sama yaay. mu ne dafa teel a génn àddina. ndeysaan. sama yaa xamul nu yaayam mel rakkab moo ko yóbbu. dégg naa ma wax mm-hmm. ko. loolu daal dégg naa mu wax ko te bitti laa nekkoon. loolu daal laa dégg mu koy wax. Mm-hmm. loolu moom am na. ak maam bi tam mu ne maamam wàllu loxo mu ne ko. léegi nag li ma bëggoon li ma la doon doyee wax nga ko léegi li ma bëggoon génn soxna si. nga ne. ah yow la kan. waxuma ak nit. may waxal dafa am lu tax may wax. nee na waxul ak nit. ki ngay waxal mooy kan. kenn mu ngay sow. nit ñi nit lañ gis rek. waaw waaw xam nga ne nag nitu yàlla dangay am dimension boo toll. xale bi tëdd na sa kër gi waaw gis sa tànk dem na la fa ah, waaw waaw. ngeen ne tigre bi la gis. waaw. <laughs> xam ngeen ne nee naa bu ñu tàngee dëgg. gaynde ñëw suñu tàngee dëgg tigre ñëw. Ah, waaw. nit lañ nag waaye nag yàlla dafa def ci ñun xam-xam ñu egg ci dimension yi borom xam yi day am dimension yi toll loolu yàlla moo koy def waaw yàlla mooy def loolu xam ngeen ne mbokk yi jasit jasit jénna jasit jasit jasit jasit jasit jasit jasit jasit jasit jasit jasitu junne jasitu junne jasitu junne jasitu junne jasitu junne jasitu jinne korkodi korkodi jinne xam ngeen ne nag yàgg naa jàpp ay jinne yi nekk jasit am na jinne sax bu ma tuddee woon korkodi mule xale bu jigéen bi jóge woon France di tux cigarette di naan sàngara di joxe boppam mu jóge ba France yaayam fu mu génnee ñu ne ko sa doom bi wérul dof la ñu déplacé ba mu jóge ba France ñëw ba fii unité 19 ma génnee ñaari jinne ci moom faj ko ba mu wér mu dem am jëkkër am doom après ñu war ma nag koo ngeen problème boobu histoire boobu waaye man ku ma war du la jig de man <laughs> boo ma waree boo ma waree ñu rëkk sa ndigg jinne yi rëkk sa ndigg ah waaw calculeel ñi ma doon xeex ah, am na ku amoon garaat di ma jéem a xeex <laughs> kenn du ma xeex du ma tooñ kenn waaye tamit kenn du ma néewal doole am na lu ma àndal kenn du ma néewal doole boo ma néewalee doole ma dal sa kaw xam nga garaatu àdduna ak garaat bi nga xamante ne ci yàlla la bokkul barki dem boo njaay benn commandant ci la ñëw mu ne ma sëriñ bi man ne ko naam mu ne ma yow grade bi nga sol sax ñun soluñu ko ndax ñun suñu grade day jeex dañuy retraité commandant de port la saan mu nekku ñàkki ñaan. maalikul mulku mulku man tasaaw. Mhm. yàlla rek moo dul jeex. waaw kon nag gratu àdduna ak gratu yàlla du benn ndax man damay màggate ak sama grade màggate ak sama pouvoir grade boo fi mën a yor président de la république sax. mënu fi am troisième mandat wala ñeenti mandat ma jox la ci preuve. parce que nag dañuy waxante dëgg. ma jox la ci preuve mbaal waaw. lan moo tax nitu yàlla yi di ci kaw suuf. waaw. di doxal. waaw di doxal ba dem. waaw bar sàq. waaw seen leer nekk fi. di continuer di jubbanti nit ñi. Mhm. di leen awloo ci yoonu njub. dëgg la. ak di leen teese. dëgg la chaque jour ñu tudd fi. ñu tudd fi parce que maalikul mulku mun ko mënta sa dëgg la chaque jour ñu tudd fi Serigne Babacar Sy chaque jour ñu tudd fi Serigne Saliou Serigne Maoda Baye Niass Limaamu Laay Serigne Touba ñoom. seen jëmm mooy dem mais seen ruuxu day des. maanaam nitu yàlla boo gis. xanaa xamoo ne. waaw xale bii. Mhm. bi ko Serigne Saliou feeñoo. waaw dañ koo defoon lu ko metti defoon. lu ko metti mooy lan. muy jooy. Mhm. bi muy jooy. Mhm. moom su meree dëgg dëgg dëgg ba yéeg. Mhm. <laughs> lu am leer a ko mën a wàcce. macha allah muy xalaat xalaat mu dégg ne wakkaana xàqan lay naa nasrul moom nii. macha allah danaan wàcce sëñ Saalu da ci daan faj. Mhm. mu wër ko ci YouTube bi ba gis ko. Mhm. di ko jàng. <laughs> commencé ñaan ñaan ba egsi rek. ki koy jàng ne barke Sëriñ Saaliw mu daanu leer. mu daanu leer gis ngeen. di jooy. jàng ko ba mu jeex mu ñaan Serigne Saliou fajal ko aajoom. Mm-hmm. mu tëdd fajar. 4 mm-hmm. heures du matin. diggante bi guddeeg suba di xaar. guddeeg suba di xaar. mu allah. ca sellaay ba mu ñëw toog. Mm-hmm. ne ko tàllalal say loxo mu ñaan boobu laa xam ne dina tase ku ko dimbali. gis ngeen loolu maanaam li ma doon wax moom lay confirmer maanaam nitu yàlla du dee déedéet mukk doo nekk nitu yàlla yor leer di fi jóge maanaam lii ban la lii suuf la ak mbir yam lii suuf la ak ban la lii lii du daal doomu aadama boo deewee ñetti fan lii jeex waaye sa ruuxu ak sa jëmm boo nekkee nitu yàlla loolu du dem maanaam li ma doon wax loolu lay dëggal kon nag macha allah nitu yàlla du dee suuf lii nag yàpp la ak suuf la lii lii suuf la ban la seen doomu aadama boo déggee ñu ne doomu aadama du dara ndax tey ku fi dee ñetti fan lañu lay suul euh, sax yi ñëw lekk lekk la suuf ak ban ngay nekk waaye nag ruuxu bi du dee boo nekkee nitu yàlla si ngeen barki démboo njaay jinne boobu dëmm boobu ma fi jàppoon damay fàtte tur bi dee na fukki at dee na fukki tur fàtte dee fukki at dëmm bi waaye moom am deewul mu topp xale bu jigéen bi defe naa ne loolu xam ngeen ko bu dee nag dëmm mooy dee sa ruuxu des fi asantumaa na nga nekk nitu yàlla dëmm wala kaana li nga xamante ne yàlla def koo sib yónnent bi sib ko loolu bu deewee jë euh, ruuxam des fi asantumaa na nga nekk nitu yàlla waaw kon nag TMS TV bi na day génn waaye ko mu ñëw xam ngeen ne kooku moom génne nañ ci moom cinq jinne cinq jinne awa cinq ne bàyyi ko mu ñëw mbokk yi nag dama ne woon damay ñëw rek xam nga tey la Saint-Valentin ñoo ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp man damaa sol yére bu xonk ba pare ñëw toog fii ñoom Moustapha wax affaire ay Saint-Valentin ma xoolaat sama yére ma ne waa man pour pourtant lu xonk laa sol de wallaahi barke alxuraanu karim madame soo nag moo ngi préparé def ay kurtu karta dama ko ne woon damay ñëw fii ñaari nit rek laay jël ah kon nag naa fexe profité na dem def Saint-Valentin defal ko cadeau. xam nga jëndaloon nañ ko ay pareetu or ak yooyu ja bu ànd ak jamaa bi yoon dama ko bëgg a jëndal ay kii ay naka la jaar yooyu bàgg ay bàgg moom laa ko bëgg a jëndal feet nga ne mu ne waaw du ma xóot waaye nag euh, macha allah boo yoree xale boo yoree xale danga koy bégal man xam nga ne sama yoon nekkul ci yooyu man kilifa diine la mais yonente bi salaa salaam moo njëkk a bëggante moo ñu won ne nan ngay bëgganteeg sa jabar nan ngay kiiwee waaye xam nga ne man lijjantiwu ma ndax actuellement maa ngi fii depuis sànq moom may woo ma ne ko maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga ne balaa ma fiy jógee une heure dina jot wala mi kii mais ne dañu def occasion rek souhaité souhaité ñépp ñuy bëggante may ma tuuti jinne après nga wax ngeen téye seen jabar yi bu baax a baax ndax nag jinne yi ñoo tas sëy da ngay nekk ak sa jabar mu am jinne ponkalum jinne bu nekk ci moom soo ko soree mu lay woo di wax papa di la bëggeel mais boo xasee ba ne salaamaaleykum ci kër gi nga fekk ponkal bi dugg na sa jabar boo nee salaamaaleykum sa jabar mel ni gaynde mel ni segg mel ni ñay mel ni golo fekk ne du moom ab jinne bi la kon nag gis nga dama am occasion wax ko kon nag tey seen jabar yi bu baax a baax boo ñëwee si kër gi yow yaa ngi fi ngay liggéey sa jabar di la ay wax yu neex nga ñëw mu changé arrière bul xoloog moom bul joteeg moom du moom de ab jinne la ab jinne la dama bëgg ñu tey seen sëy bu baax parce que sëy léegi ay un mois deux mois une semaine parce que da ngay fekk sa jabar mu am jinne am ay rab yu bon nga takk ko jinne bi ne sëy bi du fi continuer di ruube sa jabar xolam di tàng boo leen am na ñi xamante ne dañuy nekk ak seen soxna sax barki alxuraanul karim dañuy gëj a xam nu mu mel billaay wallaay tallaay lu war a loolu du seen jabar jinne bi la mooy caractère ba doo mun a maanaam nekk ak sa jabar comme ni ngeen ware sëy yi bëri ñoo ngi tas après dañuy mujj rëccu may ma sama baat may naa la sa baat sa jabar dem seen kër waa lan moo ma indi fii yow yaa ñaan sa jëkkër baat ah man déedéet ñu ne dafa réew fekk réewul de li ko dugg moo ko ëpp doole kon nag góor ñi def leen ndànk def leen attention may ma baat bul maye sa jabar buy tàngal di kurtu carte yow arrièreal seddalal ba mu sedd du moom de jinne kàccoor yi la gis nga jinne bi nee na maa ngi wax seen secret kon nag loolu laa leen doon may ci seen volontaire yi di ñaanal ñëpp ñu souhaité ko ay ate at yàlla defar diggante yi yàlla jàppale leen ñi bëggante ñu gën di bëggante seytaane ak musiba génn seen diggante macha allah léegi nag yow laay déglu. waa léegi da ki nga bëgg. nga wax ku ne tey ki mu bëgg. léegi dama bàyyi ki ma bëgg. Ah. nit la yow ah! jinne nga xanaa lii tooñ la <laughs> ah mbokk yi lan ngeen wax ci li mais kii nit la yow jinne nga kii mënoo ko seyal mënul mënul a seyal ndax moom nit la waaye man bëgg naa ko ku ma gis boo ko bëggee ku ñëw ci moom ma wóor ma xool ko xam ne kii intention bu baax yëkkatiw waaw du ko ci boole wax waaw dama koy bàyyi muy woote di yàq crédit yàq mm-hmm. yàq ba doy ma xëy xëy def ni xel mi. <laughs> gis nga ñoom dañoo garaw joxal ñu yaayam wax. nee na maire bi moo ko sonal xam nga nag ah maire bi am na expérience tuuti ndax ci moom nga ne noppi naa ko. maire bi day am tuuti expérience. waaw gént di ko delloo kër borom këram. te kër moo baax. koy delloo bi nga génn buntu kër gi am lu ma kar dama yow kii da koo delloo si ma ne ko delloo si ko dëgg laay def ndax doomam jee tax barke Sëriñ Tuuba Dakar ci buntu kër gi ma ne Dakar gii de xam la jinne yi dëkk ah, gis mm-hmm. yàlla baax na dama daan gis mm-hmm. Mm-hmm. Thierno sa ñetti tur moo tax may gis daaw ma gisati. tàccu leen loolu waay alënduma loolu. barke Serigne Touba. ni ko Moustapha waxee ci Gambi ni ko Alseri waxee ci Gambi ni ko gars yi waxee. ñetti Thierno Moule Sow dafa am barke. moo mooy dimbali. nee naa la jamono jooju maa ngi dëkk Almadi du ma nelaw defe naa ni ñi ñëpp naa leen kër gi ma luwe woon di fay 500000 du ma nelaw guddi di jënd 5 Nescafé di ko teg di yurdu di ñaan suñu borom bëgg naa boobu sax siiwee ma comme mais gis nga boroom xam-xam da ngay sóoraal lu ñëwagul bëgg naa sama tur bi kat yàlla nga dimbali ma su ma taalibee yi képp ku ma bëgg sori ma bu ma ñaanee sama tur bi mu nangu ak samay kurtu carte ak samay affaire def ñaan ba yàlla nangul ma ma def sarax nag yàlla nangu gis nga dèjà lii tubaab yi créé nañ ay ay ay Instagram créé nañ ay affaire léegi man tamit sama xam-xam bi maa ngi ci créé di ci dimbali nit ñi lu mel ni ñetti Thierno Moule boo ko waxee rek yàlla dimbali la calculer leen soxna si dem na ba jinne yi jaxase xel mi mais bu waxee ñetti Thierno Moule rek xel mi ñëwaat ba léegi moo ngi mën a di gént moo ngi mën di gis te sama mbokk yi gars waa TMS bu ñu demee woon Gambie jinne Gambie yi commencé jaxase ruube gars yi defe naa ne ñetti Thierno mule lañ doon wax ci suuf ba yàlla yombal lépp waaw kon nag macha allah. yàlla def na ci barke te saa su ne maa ngi ciy gën a ñaan yàlla di gën a yokk doole bi gis ngeen damay ay ñetti xar rey ko pour spécial loolu pour tur bi ñetti xar gis ngeen barki démboo jaay ñetti xar laa fi rey ak benn nag am na benn nag bu nekk ci suuf xam naa ne d'ici deux jours trois jours ñu def ko aussi sarax léegi jinne dama bëgg nga ñëw nekk sama taalibe nga liggéeyal ma nga génn doomu jàmbur bi nga ñëw ànd ak man doon sama taalibe di ma liggéeyal macha allah nga génn kii mu mun a am sox mu mun a am boroom kër. danga may ba xale bi soo ma soxlaa woo ma. déedéet loolu moom du mun a ne waaw du mun a ne. ñu ah, du ma xool ndax man boo bañee dañuy egg fi ñu war egg gannaaw yow ponkal nga nag wax dëgg yàlla nangu moo lay arrangé balaa ñuy egg fu ñu wut a egg ak <laughs> xel du ma jënd yooyu. Ah, man teguma la xel de ndax man damaa def pare gis ngeen sécurité yaa ngi noonu taxaw di ma xaar man tamit maa ngi def pré. ah bu dee yàgg man lu ci yoonu sécurité. ah maa ak yow kese ma duma la boo buggee maa ak yow kese ma duma la te duma ma jóg fi ma toog laay toog escanté la barke alxuraanu karim du ma jóg fii ma toog laay toog defal la bagaas hmm. ah, waaw waaw ah. fi ma toog laay toog defal la affaire wàcceel. xanaa nit bala nga ko wàccee xam turam. man même bu ma xamul sa tur boo xasee ba dugg sama kër c'est fini soxlawu ma xam sa tur. pare nga pour génn wala pare woo. pare woo. kon nag bismillah moom génn gannaaw nag dafa bëgg ñu egg fu ñu warta egg ak moom. Ah, kon nag dinañ egg ak moom foofu léegi. bismillah jinna salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna fawfawlu funnaange amaru yawhirnaange inna laaha anna laaha billi baadi bashiran jinna monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi tow uddi hakkunde nde jidi kidonkol jinna monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nde jidi kidonkol jinna hulwa allahu ahadu allahu samado samado samado lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadu jinna haɓɓe mo jinna nange mo haɓɓe mo jinna nange mo jinna wàcce leen ma loxo yi rocci leen ma doole bi rocci leen ma kattan bi jinna rocci leen ma ko bu nekkoon saa na nekk zéro bu nekkoon cent na nekk zéro jinna rocci leen xel mi d'abord xel mi ngeen di jël yóbbu leen xel mi yóbbu leen xel mi ngeen rocci kattan bi maanaam moom bu nekkoon cent na nekk zéro glacé leen loxo yi jinne yi Jean Moulé Jean Moulé Jean Moulé Jean Moulé Jean Moulé Hamza Moulé mooy jinne bi doon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa kooku jinne gënu ko rëy ci àdduna bi ndax ki fekkee yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëpp doole foofu waaw Hamza mu la jinna Hamza mu la rayal ma yaram bi jinna yi Hamza Hamza Hamza Hamza mu la Hamza mu la Hamza mu la roccel ma kattan bi jinna roccel ma doole bi Hamza mu la jinna Hamza Hamza Hamza mu la jinna roccel ma yaram bi roccel ma doole bi jinna Hamza mu la paralysé la ma loxo bi jinna paralysé la ma loxo yi jinna na loxo yi dee na dee ju juude de maayu jinna bu mu mun dara rey leen ma loxoy jinna Hamza mule jinna Hamza Hamza mule paralyser leen ma loxoy ba pare loxoy ngeen yóbbu ko ci ginnaaw ngeen bloqué loxoy foofu jinna yeewal leen ma loxoy ci ginnaaw Hamza mule jinna Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza mule jinna loxoy ci ginnaaw Hamza mule Hamza Hamza Hamza Hamza mule jinna utiliser sa force Hamza mule jinna lem ko won ne ko maanaam xejoo ci moom ci ginnaaw ndax yow mi doon ànd ak yonent salaa salaam benn jinne ëpp la doole ki taxaw ci kanamu yonente bi di xeexle yonente bi kooku kenn ëpp la doole lemal ma loxoy ci ginnaaw lem lem lemal ma ko jëna lem lem loxo yi ci ginnaaw loxo yi na ñëw lem lem loxo yi lemal ma loxo yi ci ginnaaw Hamza na ñëw loxo yi nag croisé jëna xëcc ko xëcc ko jëna Hamza mu le lem lem loxo yi loxo yi nag croisé na croisé loxo yi nag croisé na croisé jina na non non na croisé na dem croisé croisé <laughs> da ngeen gis <laughs> ki ma utilisé yónnente bi la doon àndal di ko xeexle loxo bii day yor fukki jaasi loxo bii mu yor fukki jaasi ci ki ma ko génnee jëkkëram sëriñ la Thierno Sow la tudd di nit ku baax ndax mënoon na rëy mu ne man sëriñ laa duma ma fi indi sama jabar moo yabal jabaram mu ñëw fii mu ne ma Thierno seetaan nga vidéo bi mu ne ma noo dama laa gëm dama doylu li ngay def man sëriñ laa maa la mag fuuf mais li la yàlla jox joxuma ko mu nangul ma ma génne Hamza Moulé ci jabaram génnee Souleymane mu ñëw def témoignage mu ñëw indi xaalis ma ne ko déedéet du ma ko laal mu ne ma déedéet da koy laal mu forcé ma ndeysaan ba ma jël ko di nit ku baax boroom xam-xam la waaye nangul na ma man li may def <laughs> xam sa mule nag kooku laa ko génne woon te jinne boobu mu ëpp kii doole foofu gis nga nu mu ko def léegi nag xam sa mule li ma bëgg nga tënkal ma ko mu daan loxo yi bloqué ko ci ginnaaw jénna bloqué ma loxo yi ci ginnaaw ba pare mu daanu na daanu ci suuf jën rayal yaram bi mu wàcc Hamza mu ne xam ngeen ne kuy dóor moo mun kuy saaga ah ki doon ànd ak yonente bi jamono yonente bi ñaata siècle la yonente bi xam nga ne yonente bi yambar du ànd ak yonente bi nañ waxante dëgg yonente Muhammad yàlla du booleeg ay yambar ñuy ànd ak prophète Hamza jinne bu am doole la nee na ma jullit laa waaye naafeq la parce que ku ànd ak yónnent bi waruma def yi waruma waruma dugg nii mu toojal ma nii la ma def <laughs> kooku laa liggéeyloo tey xam Moule jinne bu am doole keroog bu muy daanu bi gis ngeen ko newoon naa ko sa loxo du jóg gis nga ko na wàcc ci suuf <clears throat> am nga doole am nga kàttan waaye nag yàlla jox na ma ki la ëpp doole loolu mooy wax ji nag bloqué ko xam sa mu Moulé na wàcc loxo yi croisé loxo yi ak tànk yi kii ëpp la doole ki yor fii fukki jaas jamono yooyu jaasi bu ne day nekk euh, vingt cinq kilos jamono yonente bi vingt cinq kilos jamono yooyu jaasi bu ne côté bi cinquante kilos fii cinquante kilos mais cinquante kilos jamono yonente bi ak cinquante kilos léegi bokkul kooku jaasi bu ne cinquante kilos lay yor di duma yéefari kooku nag tey moom laa liggéeyloo gis ngeen jine bi nu mu ñëwee di def yëfu vaccin fi ma mujjee ak moom